asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalu Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba suñ borom ñaan yàlla suñ mu kàttanal ko ba mu àggale mboolem naal nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne Touba ci ñu ko bëggee. di leen gàtt yotti jottali ay nuyoo ak i cantam ak i ngërëmam ko ci bokk yëpp ak bokki taar bi murid yëpp yëkkati ndigal nag jëme ko ci sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall muy sëriñ Amdi mu sëriñ Modou Mbenda mi nga xam ne yàlla def na tey moo fi jëmmi maam Cheikh Ibrahima ñu koy ñaanal moom ak rakkam yëpp ak ñu topp ci ginnaaw yëpp kàttan ak wér ba mën a liggéey Sëriñ Tuubaa ndax ñoom seen kàddu yëpp li ñuy ñaanu mooy yàlla na jekku ndigal kon loolu mooy foo leen fekk rek jekk nañ Cheikh mu Mountakha yónni ba ci moom ndigal ndigal li nag weesuwut barab bi ñu tuddee gaar bu mag te yaakaar na diggante daaw ba ren ñëpp a ngi dégg la fay xew ci loo xam ne dëppwut ak ni dëkk bi war a mel sëriñ bi nag jox ndigal sëriñ am di jox ko ndigal ne bu àjjuma ak jàmm ñu dem fa buñ demee xool la nga xam ne moo indi jafe-jafe ba lépp ñu dindi ko ba am set wicc li tax mu taamu ko ci nag bari na ndax wóor na ku ne ndigal jógee ci kër Sëriñ Tuubaa dem ci kër ma tan rek la fay fekk ndax ñoom amuñu tan gën gënal lu weesu lu gën a sëñ bi ba ma ci yónnee itam loolu sëñ am di wax dana ma ndigal lu jógee ci kër sëñ Tuubaa jëm ci kër Cheikh Ibrahima jëfi ndigal la képp lay am ne ko sëñ bëggee ni lay am kon sëñ Saliou yow mi nga xam ne yaa ak sa rakk yëpp ak sa doom yëpp ak taalib yi yéen a fi teewal sëñ bi sëñ bi yabal leen ngir ma jotle kàddu yi ba ñëpp xam ne ndigal la lu bàyyi ko sëriñ bi kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel xam ne ajjuma jàmm la yéen la ko sant ngir ñëpp ànd ko yéen waaye xam na ne bu ngeen jiitoo rek lépp na mu bëgg dana ko ne amee kon nag ñu ngi leen ci ñaanal la seen maam ji jaayante woon ak sëriñ Tuubaa yàlla ne ko ci sëriñ defal ndax xam ngeen ne dëkk bii sëriñ bi masa sanc fu ne xam ngeen ne lii tey ñuy def seen maam moo ko fi jëkke mooy boobu kër siñ Tuubaa moo ko fi jëkke mas sama dégg ci sëriñ son yi bu wax ne mas romb ci biir kees sëñ bi gis ki ñuy wax sëñ Bànda Sow bokk na ci ñi daa root ndaa yi ak di buub kër gi nee na Cheikh Ibrahima ci ko xamoon lii ci buub ëttu ko sëñ bi kon nag lii leen sëñ bi defaat ci biir la tàbbi xam ngeen ne at mu jot tam bu màggal Tuubaa gi jub si ak bu jàllee ndigal li lépp it ci seen loxo la koy tegaat waaye saa su ci tegee dana dangeen ko def ni nga ko bëggee kon nag mi ngi leen ci ñaanal la sëriñ Touba waxoon ne xam ngeen nu may xamee ne li ma leen sant def ngeen ko wala dee ñu ne ko dee mbakke mu ne waxtu ma sante nit lëf day am lu jug ànd ak moom bu jigéen digale nag mu dëkk ak moom bu jëfee digale nag day dellu si waat ci man dama xamal ne dem naa waaye mu fa yéen nag wóor na kon loolu du dal kon la Cheikh Abdou Lahad waxoon ne ñaari kër yi dafa am bañ mooy kër Sëriñ Tuubaa ak kër Cheikh Ibrahima mooy kon na yaar yëpp daje na kon nag yàlla nañ ci daje tawfeex te xam ne itam nag Sëriñ Tuubaa bi muy sanc dëkk bi daa fekk fu dara nekkut mu sanc ko waxoon ne itam yaa rekk tax ma sanc ko mooy daw nit ñi ak daw li nekkul ci daw li nekk ci loxo nit ñi waxit na dëkk bi itam ku fi sam xel indiwu saw xel dana defee ni kon nag loola moo màgg tey ba dëkk bi agsi fii mu agsi waaye xam ngeen ne tawféexu suñ borom am na ci bu baax ndax dëkk bi nu rëy nekkatul ab dëkk am réew la bu fekkoon beneen dëkk bu mu doon saa soo xëyee da nga dégg mbooloo mu faatu kon nag loolu ñaaru Sëriñ Tuubaa mooy li nga xam ne moo ko gàttalu moo ñu gunge waaye li ci suñu war suñu waru gar nag faaw ñu ko def moo tax Cheikh Modou Mountakha wax ne li ko fi bàyyi mooy wattu ak sàmm li muy wattu ak di ko sàmm nag mooy taalibe Sëriñ Tuubaa yi ak dëkku Sëriñ Tuubaa bi ndax Sëriñ Tuubaa loolu képp doon ak bëggam kon nag lépp loo xam ne gis na ne nekk na fi te waru fee nekk fas yéene loolu lépp mu juge fi comme dama ko waxe woon fii yéen nag sëriñ bi nee na ngeen xam ne liggéey bu door a tàmbali la waaye am na yeneen liggéey yu ne toll yu ko ëpp ci biir dëkk yoo xam seen loxo la ko fa seen teg bokk na ci corniche bi ñi fi tabaxi place ñëpp nañ xam ne fu ñu war a jóge la ndax ab corniche du fu ñu war a dëkk ndax sëñ bi dafa natt ay pàkk ay junni junni junni junni pàkk te amu ci benn pàkk boo xam ne dañ koy jaay ku accès dañ la ko jox ngir jëm Sëñ Tuubaa ku ko jaay daal mooy ki nga xam dañ laa mooy pàkk nga jaayaat ko kon nag corniche du fu ñu war a dëkk te xam ngeen ne Touba mi ngi màgg te la tax suñ kilifa yi fi jëkk yi fi yi jëkk yi fi newoon tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo ko jëkkoon a natt ku gis mbedd yi ni mu ko yaatalee nga xam ne xamoon na fi dëkk bi jëm si. cent vingt bi nga xam ne Serigne Saliou moo ko fi defoon itam xam ngeen ne ñu bëri dëkk foofee ci li ñu war a sekkar loolu nag sëñ Abdou nga xam ne moo jiite commune bi. mi ngi koy saytu ngir xool yi nga xam ne jaaduwut te ne fa yëpp bu noppee ba liggéey bi jeex jàmm sëriñ bi dana ma yónniwaat ci sëriñ bi ma jottali ko ndigal ci topp ndax sëriñ bi nee na bëgg na daal bu soñoon dëkk bi xar kanam bi dëppoog dëkk ko si dëkku sëriñ Tuubaa waaye nag fu neex waay dëkk fu neex waay teg dëgg la nag dëkk bi day dëkkub yërmande yërmande ji moo tax mu agsi waaye lu yërmande ji bari bari nag nit ñi kenn wëtt xool sa njëriñu bopp bay loolu ñëpp te am na ci bu fa àggee foofu lay ak dana mujj ñu sakk mbedd yëpp kenn du amatu foo jaar. léeg-léeg nga jëm ci barab bu gàtt boo xam ne yoonoo dana xat-xatin woo xam ne ndax njaay yee nañ koy tegere ku fa jaar da nga xam ne lii kat du lu jëm kër kon loolu lépp itam lu ci war a tege na loo xam ne sëriñ bi ci seen loxo la ko fa seen teg ngir ngeen sàmmal ko ko ci dëkk bi ngir wóor na ko ne bu ko tegoo tegee ci seen loxo rek. na ngeen ko na mu ko bëgg da dana ko ne amee kon nag ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm ndax yéen xam na ne fu ngeen toog rek xaar ndigalu suñu tubaab moo leen bàyyi kon incha allah bu duggee li jàllee jàmm yeneen yi ci war a topp yëpp dana ñëw leeral leen ko bu ko defee ba dëkk bi setaat delluwaat ca ne ko borom bëggee ndax xam ngeen ne kat bari na lu fi naqari sëriñ bi li ko fi naqari la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek amu ci lenn loo xam ne moom moo ko tere lu suñ boroom tere la rasulullahi digle ko Serigne Touba ñëw yeesalaat ko moom mu ñëw di ko fàttali kon nag loola xam ne nañ xam ne dëkk bi dëkkub lislaam la dëkkub Serigne Touba la dëkkub Serigne Touba nag am na wor ma yoo xam ne noonu la ko ñëpp war a maase jox ko war ma jox loolee nag Serigne Touba dafa wax ne bii di ayaari bilaay bu kaay bu soñoon njaboot gépp dañuy gindiku te kenn leen dóor yar ndax Sëriñ Tuubaa moo ko bëggee noonu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon naa ko fi bu yàgg daa waxoon nit ne ko xaadal wara noo koy bil adabi noo koy firé mu ne ko xaada woo mën na al wara mbindeef bil adabi ci teggeel mu ne ko bil adabi ca nañ ma ne moo sëriñ bu soñ du xo du xawi suturus kenn waaye nit ñi itam nag nañ xam ne lu yàlla tere rasulullah tere ko Sëriñ Tuubaa tere ko loolu képp koo def itam lor képp nga ci jële te bu soyoon kenn du kon nag xam na ne fee marché ba xew ñàkk sécurité ga bari na te ñàkk sécurité kat fu mu tàbbi nit du tara jaamu yàlla moo tax suñu borom di wax ci alxuraan ne falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawfin ngeen xam ne ki nekk ci njàqare ki nekk ci njàqare du du am teewlu mën a jaamu moo tax ngeen li ñu tuddee salaatul xawfi sax ngeen di ko gis kon sécurité mooy la war a jiit fem mooy la war jiit fem am na loo xam ne itam sëriñ bi fàttali woon na ko fi sëñ Abdou Lahad xam naa na nga ko topp xool ko yëpp loo ci gisate nga ànd ko kilifa yi nga xam ne ñoom la ko sëñ bi teg seen loxo mooy ñi ñi yar xaj yi ci biir kër yi am na ñu dem ba àgg ci wax ne dañuy dajale ay xar sax di leen sànni ci mbedd mi ñu daw te xam ngeen loolu du aada ju rafet dëppuut ak diine dëppuut ak dëkk bi loolu lépp sëriñ bi wax na ne la Cheikh Abdou Lahad Mbacké ne sama bakkan la ci teg ñaar mooy itam fas yéene fas na yéene ñeen xam ne ndigal lii mu joxe de ñi mu ko teg seen bakkan wóor na ko ne seen bakkan lañ ci teg kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh